ñi ngi war a jël tey aya 39 ci suuratu fusilat ci suñu borom di waxee ni wa min ayatihi annaka tara al ard alhamdulillah alhamdulillah وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk ñi ngi yeesal santaar suñu boroom mi ñu wërsëgal ñuy daje ci ab néegam di jàng ab téeréem mu dëppale ñu ko ca la nga xam ne mooy chehru ramadan lu am yaakaar la ñu ngi ñaan yàlla na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko yàlla nañu boole it ci ñi nga xam ne ñoo koy topp fu ñu mën a nekk ci kaw suuf ak ñiy dox suñu digganteeg ñoom boole ñu ci ngërëmam ak afiyam ñu ngi ñaanal it kenn koo xam ne bokkoon na ci ñun ñu koy wax oustaz Ali Niang rakk ji moo ko gën a siiw Babacar Niang bi nekk mairie bi waaye Ali Niang moo yoroon juma ci 17 boo ko gisee muy ko xaw a gàtt ni ci xees ci toujours day kaalawu kaala gu xonxam googu yàlla dogaloon na ci tafsir yi ay ati at daana ñëw fii di ko teewi ba ba at yu mujj yi mu nekk imam foofu ngeen boole ko seen ñaan léegi lañ ko doon rab gannaaw tisbaar yàlla na ko yàlla jéggal yàlla yërëm ko te defal ko àjjana muy wàccuwaayam kon ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane incha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا فإذا
barakallahu fikum a'udhu billahi minash shaitani rajim suñu boroom subhanahu wa ta'ala mu ni wa min ayatihi bokk na ca ay kawtéefam annaka tara al arda khashi'a mooy yaa ngi gis suuf muy nekk lu toroxlu ay wow koŋ fa ida anzalna alayha al ma heure buñ ca wàccee ndox ma ihtazat wa rabat mu daa di yëngu daa di funki inna allazi ahyaaha la muhyi al mawta ki nga xam ne moo ko dekkal kooku mooy dekkal néew ya faatu woon innahu ala kulli shay'in qadir moom day bépp mbir mooy ka ca am kattan inna allazina yulxiduuna fi ayatina ñooñu nga xam ne ñoom ñooy jéng ci suñu aaya yi mi ngi noonu laa yaxfawna alayna ñooñu day nëbb wuñu ci ñun afaman yulqa fi nnaar amu ndax ki nga xam ne dees na koy mas a sànni ci sawara xayrun am man yaati aminan yowma alqiyaama ndax kooku moo gën wala kiy ñëw ak kóoliteem yowma alqiyaama i'malu ma shi'tum def leen lu leen neex yéen nit ak jinne innahu bima ta'maluna basir waaye xam leen seen borom yàlla day li ngeen di def ko ko gis la inna allazina kafaru bi zikr ña nga xam ne weddi nañu pàttali gi di alquran lamma jaa'ahum bam leen dikkale wa innahu la kitaabun aziz doonte ne moom day téere la boo xam ne bu tedd la mi ngi noonu laa yaatihi albaatil du ko dikkal ak neen min bayni yadayhi wala min xalfi du doon ca kanamam wala ca gannaawam tanzilun min xakimin xamid mi ngi nekk ak wàcce gu bawoo ay munazal min xakim ka nga xam ne mooy ko xereñi alxamid ka nga xam ne moo yeyoo cant yépp cay sant ay jaamam fa'il la ak maf'ul xamid mooy aji sant xamid mooy ku ñu sant maa yuqaalu lak deesu la wax ñeel na lak illa ma qad qiila li rusuli min qablik lu dul lañ waxoon yonent yi la jiitu inna rabbaka la zu maxfira sa borom yàlla day borom jéggal la waaye wa zu iqaabin alim nekk na it la nga xam ne mooy borom mbugal yoo xam ne ni yu tar la mi ngi noonu mbokk julit gis nañu yéeféer yi démb ak yéeféer yi tey bokk na li gën a wuute ak niti diine yi mooy allaxira am na nit ñi buñ dee dañ leen di dañ leen di dekkal ñoom loolu dañ ko weddi luñ ko weddee nag mooy seeni xel mooy doomu aadama bu dee poussière lay doon kon kooku nan lay dekkiwaate suñu boroom dañuy wax kaawteef ay preuve yuy wañu ne mën na dekkal ñi dee woon mu ne xoolal suuf si ni muy nekkee wow koŋ gisoo ci benn gàncax mu wow koŋ léegi-léeg boo demoon ca àll ba wala joon ñoom bilal caam li ñuy tudde lokkot daan dajale ñax yi tool yépp taal lépp takk suñu borom nee na ma xëy xëy wàcce ndox bi ma wàccee ndox gannaaw ba suuf daa di yëngu façon gàncax bu ne génn ci ca même boo dëkkul kawit war ngaa xam ne gàncax googu buy doog a bëtt suuf di génn day nooyu comme coton sunu borom moo dekkal suuf boobee beneen li nga xam ne nii kuy baykat ci àll bi xam na ko muy li ñuy tuddee ab larmet larmet gone ak Ndakaaru du ko xam waaye ñoom si Ousmane ñan ñi xam nañ luy larmet mbokk larmet da ngay dem ci tool bi mi ngi doog a taw ba suuf si wow koŋ da ngay ñëw dóor gàjji bu ko defee mu yëkkati suuf si mën na ci yëkkati loolu boo ko yëkkati woon pesé ko war na jege lu jege genn wàll liibar wala liibar nga jël pepp dugub bi sànni ci daa di tëjaat kaste ko ci biir buñ te defee une semaine pepp dugub boobee la nga xam ne moo cay sax lu néew a néew la te loolu suñu borom ni mu jiidee bàyyuma yi nga xam ne ñoom da leen di jiidee ci xam-xam ba pare fixé leen ca tey boo demoon ci xorondoom xorondoom yi bu dee dem nañu ba am dugub pepp bu mu mën a doon bala ñu koo denc loolu ñuy tudde mbakkan bi daal di xam nga mbakkan day mooy mbakkan gi mooy pepp dugub bi boo ko xoolee lu ñuul li nekk ci cat bi loolu mooy mbakkan bi bala ñu koo denc dañ koy dagg ba pare doo ko denc ndax xam nañ loolu mooy sax loolu ci doomu aadama yu bëri xamuñu ko gis ngeen loolu mooy sax léegi nag mbakkan gu tuuti googee suñu borom yàlla jalla wa ala yëkkatil ko fois suuf boo xam ne mat na ko mille fois yaa ngi dégg wala des milliers de fois sax xar suuf génne ko moom la borom bi di wax naan su ma wàccee ndox suuf si daal di yëngu bi iznillah daal di funki may passage gàncax ga bi iznillah suñu borom nag ne ki dekkal suuf bii day mooy dekkal aji ki deewoon doomu aadama it naka noonu rasul sallallahu alayhi wasallam nee na doomu aadama bi suuf dana lekk léppam lu dul lu ñu tuddee ajabu zanat benn lu foo yàllay bàyyi la tuutiwaay ba nu mu toll yàlla moo ko xam li wóor mooy tey cosaanu doomu aadama ñu koy tuddee spermatozoïde ak même bu ñu delloo ci première cellule ba jëkk a formé doomu aadama bët mënu koo gis abadan bët mënu koo gis loolu da lay jàngal ni kii deeyoon fii tey ñu ñëwaat mën naam sax dix ans après xool xool tame tame yépp gisuñu benn jeexitalam la wallahi am na lu fa yàlla bàyyi loo xam ne bët du ko gis loolee ca la ko yàlla di dekkal yowmal qiyaama borom bi nag ni yàlla mi ngeen gis mu dekkal suuf si génn ci bépp façon gàncax mooy dekkal ci dee woon lu waral loolu mooy moom daa am kattan ci lépp innahu ala kulli shay'in qadir loolu it mooy différence entre li ñuy tuddee athée yi ñi weddi yàlla ak ñi gëm yàlla mbokk ñi gëm yàlla yahud nasaraan ak lu ñu mën a doon ñoom dañoo gëm ne yàlla am na kattan ci lu nekk lu mu bëgg amal danaan ko amal mu am donc yow même boo xamul ban ah processus la ñuy jaare la bay amal it yow loolu du sa problème da xam nga ne moom lu mu bëgg am danaan ko amal mu am loolu muy benn suñu borom yàlla wax ba tey ni ñooñu nga xam ni ñooy jeng samay aaya yu la xidoon allah de mooy jeng masalan tey yonente bi alayhi salaam ci jamonoom dañu daan def ñaari façon pax pax mu ñu gas ba mu xóot suul moom lu ñu tuddee chaq jël suul waa Sénégal loolu ñëpp a def mu am na lu ñu tuddee laxd laxd mooy boo gasee ba mu xóot ci kanamu xabru bi nga gas fa bi ni tiwaar su néew bi ñëwee ci tiwaar boobu lañ koy dugal samp ay brique nag bu ko defee da koy bloqué ba ay bukkee ay yëpp bu ñëwee duñ mën a jot ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoom ñaar yëpp lañ doon def bi mu faatoo sahaaba yi ne waaw luñ koy defal ñu ne nañ seeti Mor Thiam comme mooy chaq Moussa Ndiaye moom mooy moom mooy lëhd nañ leen seeti ku jëkk a ñëw rek ñu defal ko loolu far yàlla dogal Moussa Ndiaye mii lëhd ñëw loolu lañ defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu boo dégg ñu ne mulhid mooy athée mooy koo xam ni yoonu dëgg daa nekk ni moom mu jàdd gis ngeen mulhid ñooñu nga xam ne nag ñooy jéng suñuy aaya borom bi jàll wa ala mu ne nëbb wuñ ñu naam yow jeune intellectuel bi saay saay si nekk fii di réeral nit ñi yor ay milliards di manipuler lu leen neex def di tëgg ka fecc ka ñii bombardé jaamu yàlla yi borom bi mu ne nëbb wuñu ma de laa yaxfawna alayna waaw léegi ki nga xam ne lu mu yàgg yàgg yàgg yàlla waxul dees na ko dugal sawara dana dees na ko sànni ci sawara kullama ulqiya fiha fawjun loolu la yàlla wax day mi nga noonu heure bu malaaka yi ne sëq un million wala dix million fër ñu ne bépp ci biir sawara ñu ne ko ndax sawara fees nga mun a hël min mazid waaw ki nga xam ne tey su doon mooy président des États-Unis ki nga xam ne tey mi nga ci ay yatcham mi nga ci ay avion privé am waaye dund adduna gi léegi mu jeex yowmal qiyaam ñu fodon ko sànni sawara ndax kii dana yem ak ki nga xam ne ëllëg bi ñëw yowmal qiyaama malaaka yaa ngi ko escorté di ko tagg di ko gërëm mu ànd ak dal ba yegg si yowmal qiyaam ndax daañu yem duñu yem suñu borom mu ne yaa kon ñaari yoon yaa ngoog loolu lañ neex def leen i'malu ma shi'tum loolu nit ak jinne la ko yàlla may loolu leen neex def leen xam leen nag li ngeen def maa ngi koy gis gis nga aaya bi maa ngi ko ubbee laa yaxfawna alayna réeruñu tëje ko mi ngi li ngeen di def maa ngi koy gis loolu it lu neex waay def bu la neexee julli jot bul julli bu la neexee taxaw ne hey maa yàlla waaye dara wala fi dañ naan sàcc bu dul raw jarto yàqi nelaw te yàlla kenn du ko raw borom boobu nag nii ñii nga xam ne dañoo weddi zikr bi boo ko alxuraan muy zikr la gën a màgg ci zikr da lay fàttali xamal la kuy sa borom zikr fàttali la lan la sa borom bëgg ci yow ci xaal boo mën a toll ca kër gaak marché baak sëy baak atte baak guerre baak lépp waaye zikr la la day yëkkati darajay doomu aadama innahu la zikrun laka wa li qawmik moo tax ba arab yi tekkiwuñu woon dara peuple bu ñu rejeté woon la biñ jëlee alquran ca la suñu borom yàlla yëkkatee seen tur borom boobu nag ni ñoo ñu weddi zikr te day téere la boo xam ne bu tedd la kitaabun aziz mbokk muy alquran ji ñu tiim borom bi tudde na ko ne hakim la tudde na ko ni téere la boo xam ne nii ak majid la mooy kon bu tedd la al aziz mooy firi koo xamee ni nii kenn du ko not ca kum dajal not la yaa ngi dégg mooy ka nga xam ne mooy kenn du ko not ca kum dajal not la alxuraan yi ngi noonu amul benn wax bu koy folli wax bu dul waxam bu ñëwee folli ko jaa al xaq wa zahaqa al batil yaa ngi dégg borom bi nee ne kitaabun aziz la looloo tax ba jullit bu ko jëfe tedd walillahi al izza wali rasulihi walil muminin amul benn julit buy gëm alquran jëfi digal alquran ci mboolem lu aju ci dundam lu dul yàlla dana ko teral adduna avant teral alaxira naka noonu it peuple yi wax naa la ko sànq arab yi tekki wu ñu woon dara rëp musuñu représenté dara ci kaw suuf amma bi yàlla yi indi ab téeréem ñu ànd ak yonent yàlla bi gëm ko te la leen suñu borom yàlla may kattan ba faris ak ruum empire yu mag yi fi nekkoon duñu nelaw guddi ngir xalaat sahaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam omar ibnul xataab daan leen wax ee yéen arab yi tekkiwuñu woon dara yàlla tere lañu ci téere bi bis buñ bëggee teraanga utu ko feneen fu dul ci diine islam bi yàlla danañu toroxal te it lu mel noonu bañ demee ba seen doom yi fàtte téere bi yàlla bi commencé xëccoo adduna ay pale yu dul jeex ay alal yu dul jeex gis ngeen tey it delluwaat nañ ci waxu adduna bi représenté wuñu dara conseil de sécurité dara décision adduna bi dara nay décider adduna bi tey mooy occident ñi yàlla nattu borom boobu nag mu ne alxuraan yi ngi nii neen du ko dikkal ci kanam wala ci gannaawam ay la nga xamee ni nii moom la waxoon jiitu fi amul kenn ci scientifique yi wala ci historien yi ku mën a taxaw ba ni alxuraan lii mu wax da caa juum abadan loolu du am masalan boo demoon ci injil bokk na lu ci gaa yi yokk ñu ne la terre est plate et Jérusalem est le centre de la terre ñoom loolu la ñuy wax ñu ne suuf si dafa tàlli nii rek Jérusalem mooy centre bi loolu da ngay gis ni alxuraan ni ñu koy waxee si àdduna science ñëw na weddi na loolu loolu dara amu ci tey jii lañ waxoon ne suuf si daa nekk ab tool bu tàlli nii rek ah ñi jëkk a wax ci ñoom ñoom Galilée ñoom Copernic ak yooyu wax ne la terre tourne ñu ci bëri dañ leen a rey église da leen a rey amma ñun alquran waxoon nañu kullun fi falakin yasbaxuun comme nañ ko doon jàng ci surat yaasin kon lim jot a wax kenn du ci gis benn défaut lim wax mooy nar a ñëw ba ilaa yumi diin it kenn du ci gis benn défaut ca mooy jamais alquran nit mën koo weddi abadan loolu moo tax ba falilaa alhamdu yéen ndaw ñi tey jii ñaata livre lañ bind sur des données scientifiques yoo xam ni day dëggal alquran mi ngi noonu am na ci ñu tuddee gloire à Allah ou les mille vérités scientifiques du Coran le Coran la Bible la science mi ngi noonu bu Maurice Bucaille haza huwa al haq ba téere boo xam ne témoignage yu douze ulémas yoo xam ne ñi ay américains lañu ay chinois ay japonais ay yu nekk ku nekk ñu gaaral la aaya alquran la nga jëkk a wax mooy lii kenn mënu ko woon a xam y'a deux siècles en arrière ñu ne le ah pourtant alquran wax na ko bokk na ko ci gën a siiw mooy Keith Moore le prix Nobel de la paix ci embryologie yaa ngi dégg moom mu ñëw moom it tuub dugg ci l'islam li gars yi wax découverte scientifique yépp mu ne lii alquran waxoon na ko depuis quatorze siècle kon borom bi mu ne laa yaatihi l batil min bayni yadayhi wala min xalfi amul fenn fu ko nen di jóge lu waral loolu mooy ki ko wàcce mooy hakim alhamid yàlla mi nga xam ne temps tënk ko espace tënk ko xam ne li fi xemoo xew xamoo xewoon xam lii nar a xew bi ila yawmi diin moo bind suuf amul benn ruqu-ruqaan lu dul xam na ko loolee moo wàcce alquran muy alxakim alxamid bi nga xam ne mboolem ay santaaneem cant moo ca nekk mboolem lu mu bind cant la mboolem lu mu dogal cant la te muy sant ay jaamam kooku ma wàcce alquran waaw lu tax nag yonent bi alayhi salaam indi lu toll nii njëriñu doomu aadama yi suñu borom mu ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin ba pare fu mu romb ñu ne hoo xool leen ko ah haza allazi yazkuru alihatakum xool leen dof bi xool leen woykat bi xool leen jabar bi mbokk loolu metti yonent bi lool laqad naalamu innahu la yaxzunuka allazi yaqulun suñu borom mu ne xam naa ne li ñu lay wax touché na la metti na ci yow waaye ne gis nga li ñu lay wax moom la ñu waxoon yonent yi la jiitu woon rek liñ la wax moom la ñu waxoon yonent yi la jiitu woon te mbokk doomu aadama bokk na luy dalal xelam mooy lii xam ne yow jëkkewuloo ko yonent yi fi jiitu woon yépp wax nañu dañoo dof njabarkat lañu ma arsalna fi qaryatin min rasulin illa qaalu sha'irun aw majnun dof la waykat la njabar la dafa bëgg a réeréelu luñ la wax rek yonent yi jiitoon loolu lañ leen wax kun muñal muñal borom boobu subhanahu wa taala ne sa borom bi la yónni borom njéggal la de ci képp ko tuub ci ay jaamam waaye borom mbugal yu tar la ci képp ko deeyale kéefér kon muñal rek bàyyi leen ñu continuer ci li ñuy def mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne walaw ja'alnahu qur'anan a'jamiya su doon dañ koo def alquran joo xam ne alqurani arab rek lay doon la qaalu lawla fussilat ayatu kon day dañu wax ay moom ana lu teewoon ñu teqale ay aayaam a ajamiyun wa arabi ama ndax dañuy jël loo xam ne ajab la ajam la mooy lépp lu dul langue arab ba pare di ko wàcc ci ab arab ab arab koo xam ne ni arab lay lakk qul huwa lillazina amanu hudan wa shifaa neel nekk na ñeel ñi gëm lii di ak njub nekk lu leen di saafara walazina la yuminuuna fi aazaanihim waqar ña nga xam ne nag gëmuñu seen nopp yi day lu diis la caa saañu wa huwa alayhim ama te it nekk na ci ñoom loo xam ne nii dañ caa gumba ulaika yunaadawna min makanin baid te ñoom day mooy ñañuy woowee ca place bu sori wa laqad aatayna muusa alkitaaba faxtulifa fiihi joxoon nañ muusa téere ba ñu daal di cay wuute walawla kalimatun sabaqat min rabbik bu dul woon a kaddu gu baw kaddu goo xam ne jiitu woon na bawoo ca sa boroom la qudiya baynahum kon day doon nañ atte seen diggante wa innahum la fi shakkin minhu murib waaye ñoom day ñi ngi nekk ci sikk sàkka ci alquran ji muriba gën jaa tar ci sikk sàkka mi ngi noonu al murib mooy koo xam ne sikk sàkkaam ba da koo jaaxal lool mi ngi noonu man amila salihan fa li nafsi ku jëf lu baax ba kanam lu ko jëfal wa man asaa fa alayha ku jëf lu bon ca bakkanam lay dellu wa ma rabbuka bi zallamin lil abid sa borom yàlla nag nekkul aji tooñ ay jaamam mi ngi noonu mbokk suñu borom dani alquran jii day maa ko wàññi ci lammiñu arab maa ko wàcc ci lammiñu arab yéefiri ne waaw moom nee na wax yi muy wax mooy suñuy wax rek lay wax law nashaa'u la qulna misla haza li mu waxee bu ñu neexoon ñu wax ko borom bi mu ne moo ñu day su doonte ne ne dama ko wàcce ci beneen langue bu dul langue arabe mu ñëw di leen ko jàngal feneen mu ne duñ ko gëm amma fii mu ne dañu wax lu teewoon ñu wàcce ko ca langue bi ñu xam leeral ko ba ñu comprendre ko loolee ñu dégg ci ñaari mbir mbir bu njëkk ba mooy ñi ngi sant yàlla bu baax ñun ñi nga xam ne du ñuy arab suñuy maam du ñuy arab yàlla wërsëgal ñu gëm alquran topp alquran loolu gëneelu yàlla la waaye it loolu daf ñuy jàngal ni loolu arab yi wax ne bu doon beneen langue daañu wax lu teewoo ñu leeral leen ko ci làmmiñu arab loolee mbokk waxi dëgg la ci ne amul benn xeet lu dul wareef la ca waa xeet ba ñu am ñu dégg seen langue ñëw leeral leen téereb yàlla bi ndax téereb yàlla bi buñ la ko leeralul nan ngay xamee ndigal yi yàlla yi nan ngay xamee tere yàlla yi loolu moo tax ku demoon ci benn peuple tey ne da nga leen di waar ñëw taril leen alquran taril leen hadis ba pare dem te ñoom amu fa kenn ku dégg arab mbokk kooku waaroo leen kooku waaroo leen te ji bi benn chinois ñëwoon fii ne day xutba indi ab xutbaam lakk ko ci chinois dem yaakaar naa waa jàkk ji kenn du ci jëriñ loolu leen ñu bàyyi ci xel bu baax erreur la nag boo xam ne topp na suñuy maam ba tey ba tey jii Sénégal gi quatre-vingt-dix pour cent ci jàkka yi imaam yi bu ñuy xutba arab rek la ñuy làkk dem seen yoon am na ci xutba yoo xam ne nii depuis siècle yi passé lañ ko lañ lañ ko xutba woon rawatina ay xutba it da ngay dégg koy xutba ba pare di ñaanal ay buur yoo xam ne ba ñu dee ëpp na trois siècles yaa ngi dégg léegi-léegi dañ naan xutba bii day ñu ngi noonu am na jumaa yoo xam ne sax taxu ñoo sori trop ñu ne waaw xutba bii moom la fi suñ diw bàyyi woon duñ ko weccee ci dara ñun bi ñuy xale daanaka yépp mënoon nañ koo répété fekk jànguñu ko sax mbokk loolu ay erreur la doomu aadama yi sooy wax ak ñoom soo leen di waar da nga leen di wax li ñu xam boo ko deful waaroo waaroo leen fa ma ballagtu risalata am na ci benn caricature waaw benn caricature boo xam ne mas na am ci jamono Senghor bi mu nekkee fii président doxul de non bi baaxul bi dañ ko diñ ko dépension man nga ko ba Osman mu xool bi en attendant mu xool waaw kon xam naa liñ doon wax gën ñoo tul woon ci micro bi dafa amoon problème dafa fekk rek ñu doon wax ni képp koo xamee ni nii da ngay waar ay nit fokk nga wax leen lu ñu dégg su dee ne la ngay wax ñoom dégguñu ko waaraate googu l'islam du ko considéré ca laa leen doon jox benn misaal boo xam ne Senghor da doon def tournée bi mu ñëwee ba Kébémer ñu mu daal di ñëw di làkk fu mu dem rek français am lay làkk dem yoonam gaa yi ko wërit lu mu wax rek bu ñu paree ñu ne dëng dëng dëng tëgg seeni seeni tama Senghor daal di ne ah mes chers compatriotes je viens de recevoir une mauvaise très mauvaise nouvelle mu ngi noonu le décès de mon ami Amical Cabral gaa yi tëgg na di way way way Senghor mu ne eh dama ne sama xarit Amical Cabral dafa dee laa wax ngi de voilà voilà mi ngi noonu mbokk su ko defee loolu mbokk benn échantillon rek la buy wone ne kuy dem naan da ngay xutba ay nit di xutba ay nit ba pare ñëw di leen wax lu ñu xamul loolee mbokk vraiment xel mënu ko nangu ala kulli xaal suñu borom yàlla ni daañu wax ne waaw moom moom lu tee woon ñu daal di teqale li nga xam ne moom mooy ay aayaam suñu borom ne day xamal ni alxuraan ji ñeel na ñi gëm yoon bu ñuy mën a jaar di jaamu yàlla ñeel na ñi gëm loo xam ne dana saafara seeni yaram yi na am mbokk jurit alquran nekk na yoon pour jaamu yàlla waaye mooy saafara feebar ya nekk ci biir dënn ya waaye mooy saafara it feebaru yaram te loolu it dañ koy nangu yonent bi alayhi salaam nee na fatiha ruqiya la mooy saxaaba ye bañ demoon ca buur ba jiit ja mattoon nga xam leen ni mbokk jiit jiiti Sénégal yi loolu ay petit jiit rek la waaye boo demoon ci ay yenn àll yi da ngay gis jiit yoo xam ne buñ lay matt moog jaana yem waaye bañ ko moccee ak fatiha mu ne lu ku la xamal ne fatiha ruqiya la naka noonu mbokk almuawisaat yi xuloolahu ahad xuloosul falaq xuloosul minnaas yooyu yépp képp ko feebar mën na koy jàng di ca moccu am na ay borom xam-xam xatta ahlu sunna yu nangu ne alquran mënees na koo jàng ci ndox naan ca sangu ca am na ca ñenn ci ñoom sax ñu jàpp ne mën nga koo bind tekk ko bu dee alquran rek la donte ne du dëppoo waaye almuhim alquran day fat dënn yi day faj la nga xam ne muy jëmm yi kon muy njub ak faj amma bu dee ñi nga xam ne ñoom gëmuñu suñu borom nee na seen nopp ya saañu na ca it ñoom gumba nañ ci alquran gisuñu njëriñam ca loolu it mbokk julit tey da ngay gis benn plat mi ngi nii ñu indil ko ñaari nit kii moom daa ànd ak wér gi yaram biñ ko joxee plat bi mu lekk ci ba suur kee daa feebar ba ka xet gi xeeñee rek mu ne na dandu ça ne pas dire que ne plat bi moo am ñaari taxawaay déedéet benn taxawaay la waaye kee daa feebar naka noonu it alquran mi ngi nii yàlla indi woon ko muy jëriñ doomu aadama yi waaye dañuy gis ne ñi nga xam ne ay yéeféer lañu yàlla moo kas seen xol ba duñ ko mën a jëriñoo baram bi joxe ci misaal ne ñooñu de ñu ngi leen di woowee fu sore sore sori te loolu laa shakk ne waa ji taxaw fii di yuuxu mbokkom ba nekk mbokkom ba nga xam ne moo nekk fële ci grand yoff wala feneen ku toog fii di ko dégg danaan kii daa dof borom boobu nag subhanahu wa taala ne yow yonent bi wala am lu la neqari gis nga alquran ji indil woon lu mel ni wàcce woon nañ ko ci yonent yàlla Muusa biñ ko wàccee ci yonent yàlla Muusa gis nañu ne dañ koo weddi suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala ni bu dul woon a kàddu gu wéy ci sa borom day doon nañu àtte ci seen diggante ca loolu itamit mbokk day delloo rek di dalal xolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ne du yow lañ jëkk a weddi te it yàlla du atte ci àdduna yàlla attee ma ngay mate ca àllaaxira borom bi nag daa di ne kuy jëf lu baax ci àdduna gi lu baax loolu dana ko ñeel àdduna ak àllaaxira waaye ku jëf lu bon ca boppam rek lay yem lu bari ci doomu aadama yi nag nangu nañ bu mujj bi waaye nangu wuñu bu jëkk bi te jii kenn du jàpp ne ñun fu ñu jëm ndax suñu mbokk diw sàcc la fu ñu jëm ndax suñu mbokk diw agresseur la xam nañ ne lu bon la mi def ci boppam la yem waaye ana ñaati ci ñun ñoo jàpp ne suñ diw mooy suñu yaakaar adduna ak alaxira lu waral loolu mooy jàpp nañ ne defal na yàlla loo xamee ni nii képp ku ko yaakaar wala nga yaakaar doomam wala sëtam la chaque ne yow da nga bokk ci ñuy texe borom bi nag mu ne déedéet ku def lu baax boppam la ko defal ku def lu bon boppam la ko defal sa borom yàlla moom du tooñ mukk la nga xam ne mooy ay jaamam mi ngi noonu Cheikh Ousmane
إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا أخرجنا من بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائما وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم ولنذيقنهم من عذاب غليظ بارك الله فيكم سني بروم جل وعلا مني إليه يرد علم الساعة ci moom day lañuy delloo xam-xamu bisu pénc ba wa ma taxruju min samaratin min akmamiha doo génn mukk benn meññeent ca la nga xam ne moo ko ëmb wa ma taxmilu min unsa naka noonu it du ëmb mukk benn jigéen bàyyuma laag jur laag lu mën a doon wala tada'u du nekk mukk di wasin illa bi ilmi xanaa lu dul ci xam-xamu yàlla ba wa yowma yunaadihim ayna shurakaa'i bisum leen di woo yowma alqiyaama moom moom ana sama bokkaale ya qaalu aazannaaka ma minna min shahid ñu ne ay yàlla ñu ngi lay yëgal de ne ñun day amul kenn kuy seede ne ma sañ laa bokkaale wa dalla anhum ma kaanu yad'uuna min qablu noonu lay sankoo lañu nekkoon di ko wootee ci jëkk wa zannu ma lahum min mahis ñu jort ne nag duñu am fenn foo xam ne muccuwaay lay doon ci ñoom la yasamu l insaanu min du'aa'il xayr doomu aadama du tàyyi mukk ci woote aw yiw wa in massahu char waaye heure bu ko lor dale fa ya'uus mu nekk kuy doon kuy ñikki xanuut kuy naagu ne dootul amati yërmandeg yàlla wala in azaqnaahu rahmatan minna bu dee ne nag ñoo ko mosal yërmande bu bawoo ci ñun min baadi darraa massathu gannaaw lor goo xam ne da koo laloon la yaqulanna haza lii mu ne waaw lii moom ñeel na ma man wa ma azunnu saata qaima jortuma sax ne bisu penc dana taxaw waaye wala in rujutu ila rabbi su dee dañ maa delloo ci sama borom it inna lii indahu lal xusna su ma demee dana ma fa ñeel la nga xam ne muy la gën a jekk la gën a baax فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ديس نا خبار يوم القيامه يفري تي لب لون دون فغو ولا نذيقنهم من عذاب غليظ تدل ديس نا لن مسل تي لاغا خاني موي مبغل مو دغر مو متي ما ميغي نونو borom bi subhanahu wa taala day wax ni xam-xamu bi si penc ci moom lay dellu te loolu mbokk suñu borom moo ko jagleel boppam xamulu ko malaaka xamulul yonint kañ la bisi penc di ñëw da koo def kumpa def ko xaybu donte ni ni ñu koy waxee daa iman ngalla way yow doomu aadama na am xalaatul bis penc waaye am na lu gën a jara xalaat lu gën a jara xalaat mooy yow sa bisi penc kañ lay commencé mooy sag dee kañ la mi ngi noonu sag dee kañ la suñu borom yàlla moo ko xam doomu aadama yi xamante wu ñu kañ la ñuy dee déedéet xamante wu ñu kañ la ñuy dee kenn xamu ko ku dul yàlla su ko defee nga góorgóorlu waajal ko bala laa dikkal baram boobu nag subhanahu wa taala ci xam-xamam bu peeg lépp nee na amul benn meññeent pepp yaag fruit yaag lum mën a doon boo xam ne dana génn ca fa ko yàlla ëmb muy na doon loolee ca pepp yàlla ca fruit yàlla lépp loo gis dafay am tóor tóor pepp ya génn ca suñu borom yàlla defar ko nam ko defare nee na amul benn buy génn benn benn lu dul yàlla mu ne ci sama xam-xam la génne moo gaa yi tey ab dof ndax mën naa paase naan ñaata milliards pepp ceeb nekk ci kaw suuf ah wallahi loolu dama ne doomu aadama xal- du xalaat loolu ñaata milliards de milliards et pepp dugub ñaata milliards de milliards de mboq nga doog faa jóge nag yéeg ci fruits yi nag tàndama yaag raisin yaag yeneen yaag millions d'espèces ñaata ñaata suñu borom mu ne amu ca benn benn rek buy génn mi ngi noonu lu dul ci sama xam-xam lay génn gannaaw ba liy ëmb ko wasin na doon ca jurga la ca doomu aadama ya la amul lenn lu dul ci xam-xamu yàlla la la amee wallahi yéen ndaw ñi daneen xool masalan système embryologie ak commencement doomu aadama dañu naan lii di spermatozoïde biy jóge ci ko góor gi war a dem def ah dajeeg ovule soxna si pour ovulation boobu am dañ ne fi muy jóge ak fi muy téere ji bu ñu xoolee moom puissance bi mu am dafa mel ne doomu aadama bëggoon dem ci weer wi la ngay def ci ci ci coono lu tol noonu dana ko def di xooli ovule ba nga xam ne moo jóge ca soxna sa pour ñu nar a ànd waa gars yi loolu kan moo ko gidee kan moo ko gidee bu ko defee ñuy dem bu ñuy dem di dem di dee ci yoon bi di dem di dee ci yoon bi di dee dem ci yoon bi commencement ay millions la ñuy doon dañuy dem ba mujj mille des cent des ñuy dem ñuy dem ba mujj dix des ñuy dem ba mujj deux des ñuy dem ba mujj kenn ñëw yàlla won ko bunt ba muy jaar mu dugg ca bunt ba ca la ëpp mu doog a commencé gars yi lii mën naa nekk hasard tey déet wa ma tahmilu min unsa illa bi izni suñu borom it mu ne du wasin lu dul ci ndigalam lu dul ci xam-xamam mi ngi noonu suñu benn sœur daf maa woo ne ma sa jarbaat bi ñaanal ko de moom day gis nga ni mu tuutee dañoo dem ñu écho ñu ne daa ëmb ay cheikh ma ne ko moog janax ku gën a tuuti yaa ngi dégg moog janax ku gën a tuuti wallahi mat na mille cent cinquante janax mbokk suñu borom yàlla janax lu mu néew néew six doom lay jur janax wala fi dañ naan daaw tuuti na janax buñ naan daaw rëy dañ naan daaw rëy ne ñay ñay benn lay jur te ñay buy jur bakkanam day dem laaxira bala koo génne benn doom lay jur xaw a dee janax moom dina jur juróom benn doom loolu muy wone ne mbokk kattanu yàlla ci lépp la am déet fa lillahi alhamdu xale ba mujj naa jur ay seexam amul benn problème kon yàlla ci boppam mbokk mooy sos ëmb yàlla ci boppam mooy génn ëmb summa sabila yassara yàlla moo koy yombal les médecins et les gynécologues dañuy gis gynécologue yu mag seen doo seen soxna ci ci ci ci am doom lañu faatoo clinique yu mag yoo xamee ñu ni seen tur dem na fu nekk la fay dee kenn xamul nu mu toll lu tax mooy mbir bi du mbiru médecin merci day sabablu waaye yàlla moom mooy agir mooy def lu ko neex amul kuy ëmb amul kuy wasin lu dul ci ndigalam jalla wa ala borom boobu nag jalla wa ala mu ne bis bi ñuy woo bokkaalekat yi nga leen waaw yéen da ngeen ni diw ngeen yaakaaroon ana ñu yaakaaroon Isa ibnu Maryam ana ñu yaakaaroon Uzayr ana ñu yaakaaroon Sëñ Caam ana ñu yaakaar waaw léegi ana ñooñu bu ko defee ñu ne ah yàlla kat ah ñun amuñu tey kenn kuy mën a seede loolu musu ñoo bokkaale kenn borom bi ne dañ naan wallahi rabbina ma kunna mushrikin musu ñu bokkaale kenn borom bi nag nee na noonu lay réeree loo xamee ne nii nekkoon nañu di ko woote te bu ko regee duñu am kenn koo xamee ne nii wala fenn fu ñu mën a làqu jëm su ko defee nga la waay mbokk julit nañ góorgóorlu wax ak ku ñu mën a waxal ci xarit yi ci dëkkandoo yi booy yaakaar yaakaaral yàlla booy woo wooyal yàlla am na benn waay boo xam ne nii nettali na ma benn léeb bu gaa yi léeb pour man jàpp naa léeb la waaye moom nee na xam na ki nga xam ne nii mu baayam moo ko defoon dafa jóge ci benn accident bi mu ñëwee accident ñu yóbbu ko hôpital bi mu ñëwee ci hôpital bi léegi médecin yi réanimé ko bi ñu bi mu bi mu yeewoo xool gis lamp yeeg blouse yi merci na ko waaw góor gi noo tudd mu goo gestu gestu gestu waa ana suñ caam yaa ngi dégg ñu ne ko ñu ne ko suñ caam mu ne àdde ñu moon bis boo dee ba ba suñ caam dana la teeru ana suñ caam ñu ne ko góor gi deewoo ko yaa ngi dégg waaye waaye waaye ba ba ko jëlit loolu mbokk da ngay gis ne ñu bëri ci doomu aadama yi loolu lañ dugal seen bopp yi dugaluñ seen bopp ci ne yàlla mooy borom jaam yi yàlla mooy atte mais jàpp nañu yaakaar yépp kuy aj na ko ci masamba kii aj na ko ci mademba kii aj na ko ci nangam mi ngi noonu waaye yowmal xiyaama borom bi ne waa ana ñi ngeen yaakaaroon ñu naa yàlla mus ñu laa bokkaale suñu borom bàyyi bàyyi loolu mu ñëwaat nag ci ñun dooma doomu aadama ni ñu suñu borom yàlla bindee la ëpp ci ñun lu dul ko yàlla yërëm yàlla na yàlla boolu ñu ci nee na doomu aadama su ma ko mosalee yërmaande fekk mi ngi nekkoon ci coono bu ko defee lan la doomu aadama ji def da ngay gis ni borom bi nee na du tayyi di ñaan yiw laa yes amul insaan mi doo ayul xayr tey jii jeune jeune bi day toog mu naan cay xam naa su ma dundoon ba am kër su ma dundoon ba am oto soo dundee ba am kër ak am oto gisutoo kër ak oto yaa ngi dégg yaa ngi xool leneen ki yàlla def bu dem ba am 10 millions gisutul 10 millions yàlla yokk 100 millions gisutul 100 millions tey su ma dundoon ba am milliard gisu amee milliard problème yi 10 milliards taxaw am na 10 milliards problème 100 milliards ubbeeku laa yes amul insaan mi doolu xëy doomu aadama lu mu am gisatu ko mi ngi xool lu mu amagul jeex na hëlaka hëlaakumu nuñ ko waxee alha alhaakumu takaasur xatta zurtumul maqaabir laa yes amul insaan du tàyyi amma nag borom bi nee na su dee ne dama koo fekk mu am astuut ma xëy xëy nangu ko la ëpp ci ñoom dañuy daal di ñikk daal di na àdduna tukki na torox naa fàtte ne yàlla moo leen joxoon yàlla moo leen xat ñu daal di dem ci pays mi ba ñee dem di jaay seen bopp ñee dem di sàcc ñee di dem di nangam ñee dem di drogué wu ñenn ñi sax farxaru bu dee yéeféer yi ñoom dañuy farxaru yaus qanuut soo demee lay xaru occident ngir problème kenn mun la wax nu mu toll amma bu dee julit bi gëm yàlla moom loole lan mooy mbiram wala boog borom bi subhanahu wa taala teg ci sax ni su dee ne nag man maa ko bettee mi ngi nekkoon ci lor ma indil ko ay xéewal mu daal dina ah man day yaakaaru mu ne àllaaxira am na waaye même àllaaxira googu ñuy wax su amoon it su ma demee ci sama boroom danaa fa fekk loo xamee ni nii moo gën téeméeri yoon li may dund tey ndax ñoom dañoo gëmoon ni teraanga bi ñu am yàlla da leen a gërëm moo tax mu teral leen waaye mbokk loolu erreur la doomu aadama teraanga ba muy nekkee ak tiis ya muy nekkee firiwul ngërëmal yàlla wala merum yàlla ci moom loolu régal la bu yàlla tëral ci ku ko neex ñu ngi mel ne rek kii yàlla njoolal kii yàlla gàttal ko ndax njool mi daa fekk ne yàlla da koo gërëm moo tax mu njoolal ko ndax ndaamel yàlla da ko mel moo tax mu gàttal ko wërsëg it noonu la mel am lu na gàññi firiwul am nga ngërëmal yàlla xëy amoo dara firiwul ne da ngaa ànd ak merum yàlla borom boobu subhanahu wa taala nag ne yéefér yooyu day danaa leen xabaare lépp loo xamee ne nii ñu ngi ca nekkoon ca buñ ñëwee danaa leen mosal la gën jaa tar ci mbugal muy azabun galiz mi ngi noonu Cheikh Ousmane
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عليم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط jazakumullahu khayra suñu borom jalla wa ala mu ne wa idha an'amna 'ala al-insan a'rada wa na'a bi janibi heure boo xamee ni nii day dañoo xiiwal ci doomu aadama mu daldi dummóoyu daldi beru ci ak wetam wa idha massahu shar bu ko laalee aw lor nag fa zu du'a in arid mu nekk boromu woote boo xam ne nii bu gudd ca yàllay doon qul araaytum in kaana min indillah nel ma ndax yéen gisu leen ni lii may wax bu dee ci yàlla la jóge summa kafartum bihi gannaaw ba yéen ngeen weddi ko man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id maana ko gën a sànku ci ki nekk ci ak juuyoo goo xam ne nii gu sori la sa nurihim ayatina fi l afaq daañ leen won suñuy kawteef ci gox yi wa fi anfusihim daañ leen ko won ci seen bakkan yi xatta yatabayana lahum annahu alxaq ba baa muy leer ñeel leen ni alquran ji rek mooy dëgg awalam yakfi bi rabbik ma ndax doyul ci sa borom rek annahu ala kulli shayin shahid ne moom day bépp mbir mooy ka koy seede ala la am day mooy suñu mbokk ba aboubacar jabir aljazairi mi bind minhajul muslim faatu at yi ci gannaaw nee na ala mooy nee na alu ala bu ñu yàq la ala loolu kaddu jàjj la mooy pour attirer sa attention ala la am day innahum fi miryatin min liqaai rabbihim yéeféer yaa ngi nekk ci sikk sàkk ci daje ba ñuy dajeeg seen boroom ala la am kay innahu bi kulli shay'in muhit sa borom yàlla bépp mbir naam innahu bi kulli shay'in muhit sa borom yàlla bépp mbir mooy ko ko peeg ca kattanam ga ak xam-xamam ba mi ngi noonu mbokk suñu boroom mi ngi wax mandarga doomu aadama lépp ci ñoom ñi ngi woon ci xéewal yàlla nangu xéewal yi ñu ne àdduna tukki na inna al insana xuliqa haluha halua ida massahu sharu jazua léegi nag beneen contraire bi waa ji dafa nekkoon ci coono nekk ci lool suñu borom yàlla bette ko xëy ubbil ko ay bunti alal su boobaa dañuy gis ne dafay nekk di dum mooyu beru doomu aadama yi léegi nag beru ci ak wetam te loolee mbokk bari na lool ci suñu ñi ci tey koo xamee ne nii ca àll ba la jóge ci ay néegi ñax la dëkkoon daan dugg dund ci mbooloo mi ñëw Dakar yàlla ubbil koy xéewal mu dem Almadi tabax fa këru un milliard gaa yi du caaxaan de këru un milliard mooy kër yi gën a doye di ci Almadi am na fa kër yoo xam ne nii soo demoon seen borom jox leen trois milliards duñ la ko jaay kon nga dem tabax fa këru un milliard entretien ba rek yàlla xam ñaata million la lan moo fay nekk say doom ñu ngi bitim réew booy gardien jardinier ñaari mbindaan ay cuisinier ñooñu ñi nga fay nekkal sa mbokk du la jege saxari si démb doo ñu la jege foofu nga nekk kenn du fa dem quatre-vingt-dix pour cent ci ñoom du ñu julli mbooloo loolee mbokk ëpp naa def ëpp naa def ñu ngi may wax benn soxna bu baax dafay dëkk Pikine léegi benn moroomam intellectuel la ñoom ay cadre lañu mais diw yow lan ngay dem dëkk ay kii périphérique bi loo wuti Pikine mu ne ko suñ bi mu ne ko sax bàyyi mu dëkk foofu rek un jour xarit bi seet si ko bi mu ko seetee ñu toog di waxtaan nee nañ léeg-léeg rek ñu toog koom-koom am benn mbir bu ñëw mun mun mun mun mu daal di ñëw jël dara jox ko léeg-léeg ñu dem gis benn paa ñëw mun mun mun mu ñëw jël dara jox ko mu naa mun a ko diw mu naa mun a lii moom ma bàyyi pikin su ma demoon dëkk yi fan résidence wala ma dëkk yi almadi ndax tuyaaba ji danaa ko am ndax ñi daan jot si ci man loolee kon mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax mooy nga dëkk ak doomu aadama yi di dajeeg ñoom salaatul jamaa di roofaloo ak ñoom ndax dana yem ak dem dëkki beru sa kër goo xamee ne nii gan boo fa gis rek borom kat kat la gaari waaye baadoolu dafa teg tànkam loolu ëpp naa def arada wa na abi janibi borom bi nag nee na nag su ma wul ba ci waatee jamono nag daa di nangu xéewal ya su boobaa nag mu delluwaat ca yàlla nag zudu ay ari di ñaan guddi di ñaan bëccëg te loolu mbokk mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne waaw yéen yéeféer yi xool leen bu dee ne alxuraan jii may wax ci yàlla la jóge ba pare ngeen weddi ko loolu it musiba da leen di dal de jàngoon nañ ko suratu xaafir rajulul mu'min lu mu wax waaw kii buy fen nañ ko bàyyi kanam waaye bu dee wax ni dëgg musiba dañuy dal de waaw bu dee ci yàlla la jógee nag gis ngeen gars yi dañuy tuddee la foi de Pascal yaa ngi dégg ñu ne Pascal kenn la woon ci borom xam-xam yi chrétiens yi gars yi dañuy débattre alaxira am na alaxira amul alaxira mu ne leen waa saawaay ñii nee nañu alaxira am na buñ ko gëmee dañuy am ay ajjana ay nangam ay nangam ñu ne waaw ñii ne alaxira amul dañuy nekk poussière waaw ñun dañu wax gëm nañu rek su dee gë- su dee am na ñu am xéewal su amul it ñun duñu perte dara yaa ngi de ñu tëdd ko la foi Pascal waaye mbokk yàlla bëggul ngëm boobu suñu borom dane wa bil axirati hum yuqinuun tànk yaa ngi sikk sàkk gëmagoo bay sikk sàkk ci yàlla gëmagoo ci yeneen ci yàlla gëmagoo ci àllaaxira gëmagoo yàlla la muy namm la muy nangu mooy yaqiin bil axirati hum yuqinuun borom boobu subhanahu wa taala ni danaa leen woon nag sumay kawtéef ci gox yi ak ci seen bakkan bañ xam ne alquran muy dëgg bokk na kawtéef ba yàlla jëkk a wone mooy yonent bi moo génn ay ndaw ñu néew topp ko jamono yi saar yi di wàcc yàlla mujj na ko kattanal mu daje kàngame ko Quraysh yi ca Badr toroxal leen ubbi Makka tiim waa Makka yëpp kon la yàlla waxoon def na ko donte ne it li ma leen doon junn sànq les preuves scientifiques du Coran day wane na yàlla waxoon dinaa leen won samay kawtéef loolee da ngay gis yàlla won na ko li ma leen junj sànq ci problème embryologie boobu jusqu'au dix-huitième siècle dix-septième siècle nga xam ne après après ay trois siècles lay doon xam nga lu borom xam-xam yi daan wax dañ jàppoon ni doomu aadama buy jóge ci baayam day nekk nit ku tuutee tuutee tuuti kenn du ko gis mais nit lay doon bu demee ci biiru yaayam nag di màgg di màgg ba nekk liiru doog a génn alxuraan moom waxuñu depuis quatorze siècles ne déedéet dañ leen di bind xalqan min baadi xalq dañ leen di bind atwaara tey ñu dem ba science moderne ne li alxuraan wax muy dëgg kon la yàlla waxoon def na ko am déet yu baree baree bari loolu mbokk kon borom bi moo ko waxoon danaa leen samay kawtéef ba ñu xam ne dëgg la lu waral loolu mooy yàlla moo fekkee lépp gars yi yàlla moo fekke woon li fi xewoon des milliers d'années li fi nar a xew des milliers d'années suñu borom fekkee na ko ndax mooy dogal lépp te dara du am lu dul lu ko neexul innahu ala kulli shay'in shahid borom bi nag mu ne teewul ñoom ñi ngi nekk di sikk sàkk ci daje bi ñuy dajeeg seen borom gis ngeen weddiwuñu ko de mais dañ caa sikk sàkk borom bi nag subhanahu wa taala ne waa baax na nañu xam ne seen borom yàlla moo peeg lépp ci kattanam ga moo peeg lépp ci xam-xamam ba dana leen masa dajale yowmal qiyam bis boo xam ne laa rayba fiihi ña ko weddi woo nag ña ca doon sikk sàkk ñépp mu boole leen fi jahannama jamia inna allaha jamiul kafirina wal munafiqina fi jahannama jamia yal nañu boole ci jaamam yi ko gëm gëmug yaqin waaye jëf la gëm googee di woote wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw am na am na kuy sàkku ñaan moom it ci seen benn promotionnaire bu faatu yal na ko yàlla jéggal yàlla yërëm ko defal ko àjjana mu nekk wàccuwaayam naam naam bismillah ah.
yaa ngi wax léegi embryologie dafa am suñ benn mbokk malien accident accident la ci àll bi jabar ji dafa dafa am dafa ëmboon ñu transféré ko Maroc dafa dafa am doom semaine bi juróom-ñeent doom la am ñëpp a ngi dund malien Mali malien waaw Maroc waaw waaw doom yëpp a ngi dund waaw léegi bu ñu defee analyse Hmm.
amul benn cas bu ñu mos a gis, euh, bu romb wii doom Hmm, huit waaw américain boobu waaw waaw waaw Hmm. Hmm.
mooy malgré seen appareil yi ñuy def ah def nañu échographie def nañu rajo bu nekk mais ñoom sept en sept xale lañ doon xaar.
naam médecin yi cette année à sept gosses. doom yi ñëw nekk neuf.
Hmm.
pour wane rek ne yàlla.
naam naam day wax foofu rek ne benn kawtéef bu yàlla wanewaat année yii passé record doom mi ngi yemoon ci huit benn américaine ba amoon huit doom amaa nag mu ne dafa am benn malienne boo xam ne da doon am doom ñu évacué ko Maroc bi mu demee neuf doom la am te neuf doom yépp ñu ngi dund mu dolli ci it ne échographie yi ñu defal yëpp sept doom lañ gisoon waaye bi muy wasin neuf la génne yaa ngi dégg loolu it day wane ne kàttanu borom bi ci aay bu ñu doon jàng mooy ëmbaloo ku ko neex mooy wasinloo ku ko neex mooy sàmm ña ko ca neex moo tey faat ña ko ca neex comme nañ ko jànge woon barki démb mi ngi noonu subhanahu wa taala naam waaw képp koo xamee ne ni majeur na nekkul sa kër yoroo ab dundam kooku ak muru koram waru la ña nekk ca kër ga ca majeur man koo génne ñoo koy génneel seen bopp soo leen ne daal dañoo nekk ci kër gi majeur nañu ci amuñu doole yaa leen di dundal su boobaa moom nga génneel leen ko mooy la gën wallahu subhanahu wa taala alam naam waaleykum salaam ndax jigéen dana dana lan ah xunóot waaw ndax jigéen dana xunóot lu góor ñi def ci jaamu yàlla rek jigéen da koy def wa waaw ñu ne waaw ah waaw waaw wax nga dëgg wax nga dëgg mu ne dañ ne buy buy xunóot te bëri mën na koo tere am doom mas naa koo gis ci benn vidéo internet benn waay di wax naan xam ngeen musiba bi li ñu jural musiba xoolal xunóot xunóot bi ñuy wax ci kaw te jigéen buy xunóot du am doom yaa ngi ah ah ah waaw du ko déggee dana très bien très bien waaw ñu ne jigéen bu déggee xunut du am doom mbokk loolu suñuy waxi maam la yoo xam ne teguwul fenn ci gàttal mboolem lu ñu sant jigéen mooy lu ñu sant góor lu dul cas exceptionnel ci ay taxaw di nodd wala taxaw di yëkkate sa kàddu di liqaam wala ay nekk imam waaye bu dee ibaadaat yi nga xam ne dañ koy wax ci suuf mboolem lañ ca sant góor moom lañ ca sant jigéen wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw waaw ñaan gi yonent bi alayhi salaam waxoon yaay Aïcha mooy allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna yàlla yaay aji jéggale te da ngaa bëgg di jéggale yàlla nag ma jéggal dafa am nag ci téere yi ñu koy toxale ñoo xam ne dañ caa dolli karim allahuma innaka afuwun karimun karim boobee yonent bi waxu ko donte ne yàlla huwal karim waaye nag yonent bi boole ko woon ci ñaan ga la gën ci ñaan mooy ñuy waxee ko na ko yonent ba waxee wallahu subhanahu wa taala alam naam nit ki ndax am na fu muy toll kenn du ko bindal bàkkaar ahakay mooy su demee ba naax ba nekk ba teqali koo xelam waaye tànk mi nga ànd ak xelam dañ koy bindal bàkkaar loole tànk mi nga ànd ak xelam dañ koy bindal bàkkaar amma nag ku demee ba xelam dem ki xelam dem moom suñu borom nee na yonente bi sam nee na dañuy teggi xalima bañ ko doon bindal ay bàkkaar mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam amma ndax âge bu muy tënku déedéet bu doon te ne cent vingt ans mi ngi xelam lu mu wax ci lu bon wala mu jëf ko lu bon dañ ko ko bindal dama xamul ne ban rapport la ma koor gi mu ne ah ko ndax mën nañ bàyyi koor waaw âge képp koo xamee dem nga ba mënatoo woor sa âge yóbbu na la mënatoo woor wala sa wér-gi-yaram moytu la woor da ngay bàyyi koor affaire bi dépendre ci âge bi mi ngi dépendre ci wér-gi-yaram bi xam nañu dañ naan ku feebar mag feebar ñu ngi noonu waaye nit ki mën nga am soixante dix ans koor teggeeku la gis borom quatre vingt dix ans boo xam ne ba tey l'islam daan ko wooral lu waral loolu mooy koor gi sonalu ko amaa nag boo âgé nga xam ne boo toogee vingt quatre heures bi ñuy koor yëpp lekkoo ko dalay sonal su boobaa l'islam danaan la waaj bàyyil koor gi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw quantité muuru koor day dañ ci am juyoo tegtal yi ci rot ñu ngi commencé deux kilos ba trois kilos deux kilos deux kilos plus quarante grammes deux kilos deux cent deux kilos cinq cent trois kilos loolu lépp wax nañ ko ala kulli xaal daal su doon te ne ne yow da ngaa bëggoon lu peeg fexeel deux kilos yi moom boo koy génn nga am rek loo ca teg xam ne ay xasee mi nag yooyu ñoom ne nañu 40 grammes baax na doonte 40 grammes représenté wul dara bu doon te ne da ngaa jëloon masalan un kilo séddale ko quatre personnes masalan tey jii amoon nga quatre personnes ñu war a génne ku ne deux kilos muy huit kilos nga teg ci un kilo su ko defee ku ne dana am genn wàll libre muy deux kilos ak genn wàll libre incha allah jàpp nañ ne sa muurum koor mat na ndax xam nañ ne yonente bi alei salaam la mu waxoon ñu koy génne ci ay saa loolee du woon ceeb yonente bi alei salaam daw ñu génne ceeb loolee moo tax poids yi dafay varier hatta même ceeb bi ceebu Caroline bi ceeb bu sew bi boo ko pesé woon mën na varier looloo tax ci gàttal daal génneel ku nekk deux kilos nga seet loo ca teg lu mu gën a bari ci yow nag loolu rek la la la la ñeel man tatawwa xayran fa huwa xayrun lahu waroon ngaa génnee trente kilos zakat murum koor nga far jënd saako ceebu cinquante kilos jox miskin yi loolu yiw rek lay dolleeku ci yow mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw naam ba astafirullah ala kulli xaal mën nañ ko génne CFA yaakaar naa am na xot ba buñ dugaloon ci kii borom xam-xam yi daal dañ ca am ixtilaaf dañ ca am ixtilaaf doonte ne ni am na ca ñoo xam ni dañ ni kenn du ko génne lu dul ci dund am ñoo xam ni dañ ni mënees na koo génne ci xaalis am ñu ci digg doomu mooy bu dee ni maslaha am na ñu xam ne faqir bii kat xaalis bi moo gën ci moom dund bi su boobaa nga jox ko xaalis bi moo gën loole borom xam-xam yi wax dëgg yàlla wax nañ ci ay wax yoo xam ne ni bari na lu ci waay jàpp daal na xam ne ay borom xam-xam yu mag gëstu nañu indi seen i tegtal ba ni lii mën naa nekk loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam su ko defee nag su boobaa yow li ngay war a génne ceeb da ngay doon génne masalan deux kilos ceeb nga doon génne nga dem ci met boutique bi waaw kilo ceeb lu muy jar mu ne la 400 kon nga xam ne bopp bu ne 800 la mu jeex kilo ceeb lu muy jar 300 kon bopp bu ne 600 la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam kon mbokk yaakaar naa waaw ñu mujj ci mbokk bi rek ñu ñu jégalu waaw waaw waaw salaam ah étudiant boo amee rappel ndax mën na cee génn mburum koor ah kay ba mu rappel sax mën na cee génn mburum koor mu muurum koor mbokk muurum koor dañu naan borom dañu naan ki nga xamee ne nii am na lu mu dundee tey moom njabootam mu am lu mu desal loolu da ko war a génn muurum koor xam nañu loolu suñu jamono tey ji loolu amul te bu njëkk suñu maam yi loolu da leen daan gaar kon muurum koor moom la nga nar a denc yaa ngi dañ ko war a jël joxe ko la nga xam ne ni mooy masaakiin yi te it nga xam ne boo ko joxee avant ngay julli lay tudd murum koor soo bàyyee bañ julli ba pare nga koy doog a joxe loolu doo tudd murum koor su ko defee ñaar moo mën a am imma nga jël ko joxe ko directement wala nga yóbbu ko ci ku koy dajale masalan jàkk yu bëri boo demee imaam yi am na ñuy dajale ay muuru koor soo leen ko joxe yow sa jan wàcc na loolu mi ngi noonu mbokk julit wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain